de volonté mais surtout euh, bëgg euh, li nga xamné ni modi liñ la falé au moins nga bañ ko xamné dañ lay ngagn mhm. xam nga tay euh, dañoo jox réew mi Bassirou Diomaye Faye mhm. premier ministre ba nek Ousmane Sonko mhm. sénégalais yi ne waaw ñi amuñu expérience amuñu ki tay ñu dem fa nga xamné ni modi séminaire lañ fa def parce que séminaire la pour former ñi nga xamné modi ay ay député et surtout mu ne assemblée niwulik manam assemblée pour xamné day ñëw li fi nekkoon ci treizième quatorzième ak douzième ainsi que yiy jiitu mu nek yo xamné ni dañuy effacer euh, li fa nga xamné modi je suis désolé mais comme marché bu euh, assemblée à ñu amone mm-hmm. ay nit di saga di xeex du ken xamul di dóorante mm-hmm. di nelaw heure euh, voté jot nga jóg voter xamo sax li ngay voté loolu nga wax wi exactement lolé tay ñom ñu ne bugguñu lolu mm-hmm. mais bugguñu lolu ah, dafa am ay prix aussi tay du man Ousmane Sonko mom fal suma fa démé Ousmane Sonko bëgg def xam nga tay ji wax sénégalais oui daf ñoo def atelier formé nañ suñu ay euh, député neex na mais est-ce que dinañ ko appliquer aussi. Mhm. ah xam nga tey député bi nga xam ne nii sànq mu nga koy wax am na ñoo xam ne nii xamuñu man def naa reportage boo xam ne dama laajte nit ñi ndax xam ngeen. ñu nekk si liste yi carrément lañ ma wax. xamuñu ko Ousmane Sonko lañ xam baa ngi fi ñun Ousmane Sonko lañ kan euh, ma ne leen te de liste Dakar ñu ne ñun Ousmane Sonko lañ votel mais Mbour ñett ñu fa investir ñoom ñëpp ay nit ñoo xam ne lañ ku ci nekk da nga am mhm. mais tey boo demee Mbour ñoom xamuñ leen. mais kenn ki étudiant euh, professeur la kenn ki infirmier. Mhm. keneen que je sais pas mais euh, ñom euh, Mbour xamuñ len mhm. Ousmane Sonko parce que photo Ousmane Sonko fa mhm. Mhm. Ousmane Sonko nga votel ñu votel la surtout yow mi député euh, Mbour député Thiès ak assemblée nationale jëlal Ousmane Sonko tek ne andi li nga peuple sénégalais problème nga Funtol, Tembeni, toll lenn assemblée nationale diw mom fi anti ah, ah. di xulo di xeex di garu wante comme si mais loolu comme ni ko tout dépend de ki nga le futur euh, président de l'assemblée mhm, nationale mhm. parce que si amé un, euh, un président de l'assemblée nationale il est irresponsable mhm ku wax fee moom moo lay jéem a tontu euh, mm-hmm. nga xam ni moom la ñu gis euh, ci mujj yi à l'exception de Amadou mam Diop qui mm-hmm. est vraiment nit koo xam ni même si bu nit ñi nee nañ dafa muu et tout ça il reste exemplaire mm-hmm. tey ñoo ñee dugg assemblée nationale mais Farba Ngom ça fait 12 ans mu nekk député euh, tey bu duggee assemblée nationale du lu bees si moom xam na bu baax baax fu muy teg mais nouveauté bi nga xam ne ñooy dem 15e législature bi ngelawaay bu mel 14e bi parce que nag quatorzième bi lu fa am

40, 130 euh, euh, donc Pastef nak il est temps de travailler et mhm. que il est temps aussi taxaw ci li nga xam ne nii moo di urgence dëkk bi mhm, mais dem assemblée nationale Ousmane Sonko moom a fi andi mhm. euh, élection yàggatul ay élection yàggatul